loolu jaaduwul li nga xëy àndal ëllëgu Sénégal bu yàlla dina defee teg ci loxo yu wóor am Kaolack dina fi jóge xam naa ne population Kaolack comprendre nañ loolu benn taw benn inondation ñaari taw ñaari inondation ñetti taw ak fukki taw fu Kaolack jëm loolu moo tax ma ne du ma dem Ndakaaru tey dinaa toog fii ànd ak waa population Kaolack ñu xeex la ñuy waay xeex waa Ndakaaru pour que lii nga xam ne ni moo fi nekk l'autre population yi not sonal leen mën fay jógee te loolu xeex wi ci Sénégal yëpp. xoolal su ma dugalee sama loxo. Sonko moom tamit ñu mën a jàppale ma ah, ci kilifa ñu teew la ci demal yeggal yeggal xaaral ko. Oui, monsieur Sonko, vous avez été d'accord. Euh, man nag sama wax dugg. Euh, euh, président wax ni jóge nañu tey Ndakaaru ñëw fii ci Kaolack te li ñu fi andi mooy ñëw euh, manifester suñu soutien suñu solidarité ci nga xam ne suñu frère la suñu xarit la suñu wóolare la muy kilifa kilifa nag Sénégal yëpp xam nañu ci euh, li muy yëngatu ci wàllu aar lañ ko gënoon dañ ko njëkk a xamee waaye dafa bokk ci Sénégal yi nga xam ne dañoo gëm ni am réew boo ci bokkee lépp luy yàq réew mi da ko war a xeex lépp luy defar réew mi da nga cee war a dugal sa looloo tax mu am engagement bi mu am bokk kook ñi mu ko bokkal muy seen mouvement Y'en nga xam ne bi ñu sosoo ba léegi ci Sénégal ñëpp xam nañ leen ci les combats de principe les combats pour la démocratie les combats pour la bonne gestion la bonne gouvernance de notre loolu lañ leen ràññee moom lañ leen xamee muy koo xam ne man dama ko jàppee sama frère bopp waaye su dul woon loolu sax ñun suñu dynamique mooy kuñ fi jaay doole rek ci senegal ku nguuru Macky Sall jaay doole rek dañ ñu gis sawet parce que lay àndi mbir mi mën a law mooy kenn ku ne day toog bu ñu songee ka ca des di xaar te boobu jamono xamul ne suñu paree ci kooku ba tër ko ci yow lañ jëm gis nañ ko waxtaan nañu alhamdulilah donte xaw nañ koo sonal te ñëpp gis nañ ko donte condition mel ni mu nekk ku ci nekk di nga xaw a sonn waaye euh, li ko président Malick ko waxee rek di ko moom bu ko xam-xam ni gaynde la am na moral bi nitu mental la te du koo xam ne dañ koy xoqatal ba tax ñu briser ko loolu moom ñëpp xam nañ ko ci gis nañ ko waxtaan nañu ak moom eh, li taxoon ñu jóg ñu ci sant yàlla. ñëw nañ fi tase fekk sama frère sama grand frère Malick Gakou nga xam ne moom yàlla dafa def mu ne woon ci tournée nationale déjà doore ko fii ci Saloum bi ñëwee fekk ko fii kontaan nañ ci lool parce que ñun ñi ñëpp benn lañu te it solidarité boobu ñu war a am suñu biir. mu war a commandé su dara amee réflexe naturel la war a doon njëb jógoon te moom it saa suy mel ni amee ñépp gis nañ dañuy day jóg su loolu weesoo nag dañuy wax ni du ñëw rek dem moo ñu tax a ñëw mais ñëw wax ni duñu seetaan ñu sacrifié kii ñu ko nangu que dañoo ne ci réew moo xam ne dañoo am une justice boo xam ne lu yàlla xam doy na bu ñu ko waxee nag waxuñu tous les magistrats waaye ñaare dossier bu amee connotation politique rek suñu justice bi kenn dootu ko xam ne dañuy am ay procureur yoo xam ne dañuy fabriquer sax dañuy créer di fabriquer ay charges ndax biñ ko téeg léegi bañ ko njëkkee dégg dégg ba pare ñaari charges yu ndaw lañ ko tegoon waaye démb woowaat nañ ko yokk ci yokk ci yokk ci te loolu yëpp ay instructions yu ñu jot ñun xam nañ ni mbir mi di doxee. ne tey toog fële woo leen ne leen yokk ci lii yokk ci lii yokk ci lii comme ça ñu fexe ba am fu ñu ko jaaree pour def mandat de dépôt pour ubbi instruction yàggal dossier bi te loolu yëpp nag ndax xam nañ ni kii du sàcc kii du ku rey nit kii du nit ku bon mais loolu yëpp pour def xool nooy métisale nit lépp ci xool nooy nooy nooy loree nit boo xam ne dafa ne rek d'accord ma ak yow. loolu nag mooy nguuru Macky Sall ñëpp ñëpp xam nañ ni caractériser nguur Macky Sall te nguur nag du nguur gay mel nii wala mel ne waaye nguur gi day niroog ki ko ki ko ki mhm. moom ci boppam moom mel noonu ci ay fayonto dóorante tëjaate lor nit ñi ba pare moom ku ànd ak moom mu soo sàccoon al al réew mi yëpp mu jël a làq la ci gannaaw injustice yooyu nag la sénégalais ne mëntuñ koo nangu du am fii ci biir réew mi te du am ci kaawu kilifa ma teg ci tamit ni nee nañ ñu préfet bi ne fii moom nee mooy le seul préfet ci Sénégal boo xam ne nee na ak qu'il sera à manifestation du fi am ñu ne ko préfet wax nga lu la neex dafa am xeetu fonctionnaire yoo xam ne man fonctionnaire la moom laa woon waaye moom la fonctionnaire la dans l'âme parce que fonctionnaire mooy servir ton pays mais terme petit fonctionnaire da nga gis nit ñi suñu daan xeeb fonctionnaire yi suñu leen di xas dañu naan un petit fonctionnaire de rien du xeetu yii moo tax ñu doon wax petit fonctionnaire parce que duñu xam lan moo tax ñu toog fi moom toogu fi pour nekk jaamu Macky Sall wala jaamu Antoine Diome dafay toog pour servir conformément ak li peuple di xaar ci parce que peuple bi moo ko fay salaire Macky Sall fay ko salaire peuple bi moo ko fayal jàngam ba mu toll fii donc moom su toogee ni lu toll ni Kaolack tànk mi ngi fi kenn du fi def manifestation wax na lu ko neex ñu koy wax nag ni ci fan yu gàtt bu soobee yàlla ñun ñëpp dinañ daje Kaolack def manifestation nationale boo xam ne avec ou sans nañ ko def ci Kaolack. amul benn portion du territoire boo xam ne mun nañ ko xaj ay Sénégalais ci jamono jooju Macky Sall yor suñu oto yor suñu carburant jël suñuy centaine de millions di di jox nit ñi ay 5000 ak 10 000 pour ñu ñëw daje di ko teeru ñu ne léegi keneen ku moom amoo droit def manifestation loolu fan lañ ko def. loolu dootul am dinañ fi dellu si te li koy gën a gaawal rek mooy ne nañu def mandat de def ko kilifa bu boobaa nañ dellu si Kaolack ci lu gaaw depuis manifestation boo xam ne Sénégal yëpp dinañ ko gis te du demee noonu des nag di nuyu population Kaolack yëpp Kaolack mooy xolu Sénégal ci positionnement d'abord moo tax dama naan ko bugg a def ville nouvelle boo muusoon milliards nga def jam ñaajo boo ko defoon Kaolack tey ñoom ville nouvelle dafa leer Kaolack di ci positionnement di xoolu Kaolack waaye Kaolack ci wàllu économie loo xam ne soo xuusee tuuti dugg Gambie loo xam ne bassin arachidier fii moo tax ñuy wax tey Kaolack waroon na mel neneen lu dul nii kon ñun Kaolack dañ koo dañ koo def ville d'adoption sama stage fii laa ko defoon bi may nekk enam am na yeneen ak yeneen yoo xam ne jarul tudd fii ñi wax waa population Kaolack ni ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. fay nañ la di wax ni seen doom seen frère moo déplacé wu. ci lu gàtt la ndax yi ñëpp xam ngeen ni ñu ngi ñuy xaar Ndakaaru à 15 moo tax du yaatu waaye ci tournée nationale bii ñuy démarrer semaine prochaine. troisième étape bi Kaolack gii la te dinañ ñëw toog fi lu yàgg lu mat dix quinze jours saafoonteeg waa Kaolack jëflanteeg ñoom ba nga xam ne suñ fiy jógee Kaolack waaw waaw kay kay jox Sénégal yëpp rendez-vous à h fële place la nation ci manifestation mag boobu nga xam ne genre yi moo tax ñu koy def ndax tey am na juróom-ñetti xale yoo xam ne ñu dara dara lu war a tax ñu tëj leen ñetti weer mag Sall téye leen te moom ay doomam yi ngi jël ay avion ci suñu xaalis dem fa leen nekk loolu du yoon te il faut mu bàyyi xale yooyu. Alors, nous étions venus dans le cadre de notre de, euh, euh, des relations qui qui nous lient à Kilifa. Euh, Kilifa un ami, est un frère. Et tout le monde connaît Kilifa en tant qu'un homme extrêmement, engagé. Kilifa est connu d'abord pour être un artiste. Il aurait pu de cela. Parce qu'on a énormément de gens qui préfèrent se à faire des métiers, à gagner de l'argent et le reste, ça les intéresse pas. Mais Kilifeu fait partie de ces Sénégalais, avec tous ceux qui sont avec lui, qui ont compris quand on a la chance d'appartenir à un environnement, il faut s'intéresser à tout cet environnement-là, à tout ce qui peut par rapport à cet faire du bien à cet environnement-là. Et c'est ça le sens de l'engagement. L'engagement politique, elle-même, la politique, c'est pas ce que les gens appellent de manière galvaudée politique politicienne. La politique, c'est s'intéresser aux choses de la société et tout faire pour que ça marche bien et que chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise puisse trouver son compte. On n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique pour cela. En tant que citoyen, on est interpellé par ce qui se passe dans ce pays. Et Kilifeu l'a très bien compris. Mais au-delà de lui, le mouvement auquel il appartient, qui est le mouvement Y'en a depuis qu'il a été créé, et voilà de cela plus d'une quinzaine d'années, je a participé ou a été même le moteur de tous les grands combats pour la démocratie dans ce pays, contre l'injustice, contre la malgouvernance. Et donc, si ce mouvement est attaqué, si Khalifa est attaqué, ce mouvement est attaqué. Et si ce mouvement est attaqué, c'est tous les démocrates et tous les patriotes qui sont attaqués. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour témoigner de notre solidarité. Et nous sommes tout à fait heureux de rencontrer notre grand frère Elaj Malik qui était déjà à Kaulak dans le cadre de sa tournée nationale et qui était venu spontanément lui aussi apporter et nous n'accepterons pas qu'il soit l'agneau du sacrifice. Nous connaissons les méthodes de Macky Sall. Il passe tout son temps à épier les gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec lui et à rechercher le moindre faux pas ou même à créer des faux pas pour euh, euh faire mal. Parce que l'objectif, ce n'est même pas de la justice. L'objectif, c'est de faire mal. C'est ça la gouvernance Macky Sall. Faire mal, euh, briser des gens, euh, je pas comprendre qu'on puisse être à ce niveau. Un manque total d'humanisme par rapport à ce qui est attendu d'un leader et d'un président de la République qui doit être quelqu'un d'ouvert, tolérant, quelqu'un de patient. Malheureusement, on n'a pas cela. On est là à, épier euh, l'opposition, à épier les mouvements citoyens, à essayer de trouver le moyen de prétexte pour envoyer euh, les gens en prison. Mais ça, ce n'est plus admissible dans ce pays. Et pendant ce même temps, tous les criminels à col blanc qui ont volé tout l'argent de ce pays, qui sont avec lui, qui, bénéficient d'une protection totale, absolue. Personne, même malgré les rapports de la Cour des comptes, de l'IG e qui ont épinglé certains d'entre eux, ces gens-là narguent les Sénégalais à de journée, sont bombardés ministres ou PCA ou directeurs généraux, et on prend des gens parce qu'ils ont simplement manifesté. Ça, ce n'est plus acceptable Nous avons appris que le préfet de Dakar, de, de Kaolak, aime chantonner partout que tant qu'il sera préfet à Kaolak, il n'y aura pas de manifestation. Nous disons qu'il raconte ses rêves. Il est trop petit pour empêcher des manifestations. Et que dans les tout prochains jours, nous organiserons une grande manifestation nationale ici à Kaolak avec ou sans son autorisation, cette manifestation se tiendra. Parce que nous tenons des manifestations partout sur le territoire national et Kaolaf ne peut pas être l'exception. La semaine dernière, on a organisé une manifestation à On va en organiser aujourd'hui à Dakar. Pourquoi Kaolaf serait ce kilo où on n'organise pas de manifestation Et pire encore, ce que Kilifo m'a et les autres, il se permet même non seulement de bloquer les autorisations, mais de leur dire qu'il faut que vous, alliez discuter avec Pitei, le DG de la Sonatelle. Ça, c'est le rôle d'un préfet. Depuis quand préfet est un intermédiaire politique Depuis quand est-ce qu'un préfet joue les macro dans ce pays Ce n'est pas acceptable, nous ne l'accepterons pas. Et cette grande manifestation sera rapprochée si aujourd'hui il décidait de mettre Kilifeu sous mandat de dépôt. On ne soit retenu 24 heures même à qu'il y ait un mandataire pour compte. Ce n'est pas acceptable et nous l'accepterons pas. Et je terminerai par dire que nous lançons encore une fois un appel à tous les parce que c'est ce genre d'injustice qui, qui, la manifestation qu'on organise aujourd'hui à Dakar. Nous avons patienté trois mois après la demande des autorités religieuses. Trois mois que des jeunes qui n'ont absolument rien fait. Certains sont des trois mois que Macky les maintient en prison pendant que lui ses enfants déambulent tranquillement et librement ce n'est pas acceptable et donc nous appelons tous les Sénégalais à une grande mobilisation cet après-midi à Dakar pour et ce n'est que le début d'un cycle de manifestation jusqu'à ce que justice se fasse jusqu'à ce que ces gens-là soient libérés et je dirais et je terminerai par dire que s'il y a des préfets qui pensent que ou des gouverneurs qui que Macky Sall peut sillonner pour se rassurer. Parce qu'il a reçu un coup KO. S'il pense que euh, euh, il peut faire le tour du Sénégal avec nos véhicules. Parce qu'il ne le fait pas avec les moyens de la paire. Il le fait avec nos véhicules, achetés par l'argent des Sénégalais, avec notre carburant. Il prend des centaines de millions pour remplir des cars de et faire, semblant d'avoir des fous. Si lui, il peut le faire, de manière tout à fait visible tout autre Sénégalais tout autre parti politique toute autre coalition tout autre mouvement a la même liberté le jour où nous disons que nous qu'ils ont interdit une, visite ou une tournée de Macky Sall nous pourrons revenir pour discuter mais on n'acceptera plus ces interdictions que rien ne justifie et nous continuerons à faire nos activités comme on les a toujours fait je vous remercie Monsieur le Président soo nekkee soo nekkee